ñu jël suñu ñaari minutes jagleel ko askan bi rawatina ñu ñuy wooye ay patriote militant Pastef wala sympathisant bu Pastef ñu taxaw seetlu Ousmane Sonko taxawaay bu rafet bi mu amoon ci réewum Sénégal ba mu jaral ko mu tayle bakkanam tayle njabootam vie privée ñàkk liggéeyam ñu tuumaal ko taxal ko boobu ba tey seetalagun ko ba tey ndax it atte boobee nga xam ne atte woon nañ ko dara leeru ci digganteem mook Adji Sarr waa APR ba tey moom la ñu jafandu di wax wax ju ñaaw te ñun ñëpp xam nañ ne dara dara dara du ci dëgg waaye nag jamono ji nga xam ne xeex na wala ànd nag askan bi rawatina ndaw ñi ñu bari faatu ci bu ñu limee sax mën nañu bañ a matal ndax bari nañu loolu ñi dee ci géej gi ñi dee ci li nga xamante ne mooy prison yi ak ñi nga xam ne dañ leen buum buñ ko xaymaa bari na loolu ñaata nit lañ ci tëj waaye ndax loolu war naa tax jamono ji ñu war a werante wala sax séddoo wala pàccoo jàppee ko comme gâteau ñu ci bari ñu ngi frustré di wax bu ñu defee ay nomination ñuy ñaxtu ñu ci bari sax dañuy delluwaat di jéggalu ndax du ñu xam lan la ñuy wax APR yi di manipuler manipulation bu am solo boo xam ne su leen bàyyeek terrain bi rek bu yàggee dinañ xam ne lépp dëgg la ndax dañoo fal Ousmane Sonko ak Jomaay ngir ñu doxal wala sax ñu leen di critiquer ñun ñi leen fal bëgg leen xeexaat kenn ku ci nekk di xëccoo post loolu warul kenn koo xam ne da nga ne patriote nga baatu patriote nag ñu bëri dañu jàpp ne ki am quatre membres Pastef mooy patriote ki xeex ci xeex bi ki dugg kaso wala ki dee rek mooy patriote déedéet patriote dañu war a bàyyi xel ne mooy ki bëgg réew ba mu jaral ko lépp te du ma sa tàyyi ci réewam du gedd waaye nag day doon koo xam ne réewam jaral na ko lépp kon mbokk yi ñun ñi nga xam te ñoo bokkoon ànd di xeex ngir suñu réew rek jëm kanam nañu focus ci senegal ànd liggéey te xam ne réew mi kenn du ko pàccoo ndax Ousmane Sonko wax na ko ñëpp dégg